jërëjëf mbokki taalibe yi ginnaaw bi ngeen déggee xaside yooyu mbokki taalibe yi doon yëkkati ñu jëm ci nag ah màggalu sëñ Bamba gii nu dën mel muy 18 safar fii ci Casablanca waaye nag ñoo ngi ñaanal bu baax sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tànn ak wér noonu la ni ñaanale sëriñ Amdi Mudu Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mu yàgg fi loolu tànn ak wér waaye nag ginnaaw loolu dañoo taxaw ak suñu jëwrin yii ci ginnaaw ah ñu jo delloo leen kaddu gi ñu waxtaane lan bisu màggal bii nu dënmal kon Mouhamed Diagne bismillah aouzu billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaara di tàmbalee suñu nuyoo suñu siyaar Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am di taifatil muridiya di ñaan suñu borom yàggal ko fi wéral ko fi di ñaanal mbooleem njabootu suñ tubaa gi mu àndal liggéey suñ tubaa bi yàlla na yàlla yàggal leen ci ginnaawam te yàlla yombal ñu jëfee ndigal ginnaaw bu loolu jàllee du ngeen gisee suñu jotaay bii gis suñu jëwriñ yu baax yi suñu ginnaaw suñu imaam Njaay sëñ Moussa sëñ Baye Haruna ak mbooleem jëwriñ yi sëñ sëñ yaa salaam mi nga xam mooy jëwriñu diwaanu Bamba bi nekk fii ci dëkk bi kon waa xidmatul xadim waa fathul xafaar waa al amaana wal amaanatu sëñ xaadim bëgg Bamba ñëpp a ngi fi kon ñoo ngi siyaara ñëpp ak waa Touba suñu bokki baay Fall yi kon nag <clears throat> ñun ñëpp war nañoo xam li nekk suñ kanam mooy lan mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis ba nga xam ne sëriñ Tuubaa si Ahmadal Xadim radiyallahu anhu ci la waxee woon ne xarajtu yawma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar mooy fukki fan juróom-ñett ci weeru safar bisub gaaw ci la génnoon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ borom defal ko ndamam lu rëy mu am tey mu woote ni képp koo xam ne yaag moom yéen a bokkum mbég ñëw santale ko suñu borom tabaraka wa taala ci santale googu ñu koy santale suñu borom ñoo ngi ciy woo mbokki julit yëpp di ci woo mbokki nag dañ ciy jiital suñuy kilifa ci dëkk bii ñu nekk di far euh, Touba Maroc tey jii ñi ngi woo suñu conseil général di woo monsieur la euh, suñu ambassade di woo mboolem kilifa yi nekk dëkk bi di woo waa Arsalem di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo nag suñu mbokki daayira yi tijaan yi ñoo ngi leen di woo suñu mbokki daayira laayeen ñoo ngi leen di woo xaadir ñaseen ñëpp ñoo ngi leen di woo bàyyi bàyyiwuñu kenn bu loolu jàllee daal ñoo ngi fàttaliwaat ñëpp ni bis bii nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak mbokki jullit yi fas ko yéene ànd ak mbokki taalibe yi jub si na ñaar fukki fan ak ñett lay doon ci wii ñu nekk di mois d'août doon fukki fan ak juróom ci weeru safara kon ñoo ngi ciy fàttaliwaat ñëpp di leen ci woo di soñaan mbokki taalibe yi nu wuy seeti ci sëriñ bi ni sëriñ bi daan wuyjee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ànd ak sunna ànd ak yar ànd ak teggin jël suñu alal sunu doole suñu lépp def ci ngir liggéeyal ko sëriñ Touba daje ci ngërëmam barke borom Touba. kon dañuy jël kàddu gi jox ko al oustaz Mouhamadou lemin Ndiaye mu wax ñu nag bis bii ñuy woote lan mooy njariñ dëgg-dëgg donte ne du fi xaj. waaye lam ñu ci cofal danañ ko mën a jàppandikoo yóbbandikoo ko ba bis ba incha allahu rabbana taala cheikh mouhamad lamine bisimilah eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ mouhamad ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan waaye di beral nuyoo Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu mel ni mbokk mi jaar na ci di am mbégte bu baax a baax ci fas yéene ànd ak yéen màggal gi nga xam ni li muy symboliser mooy grandeur u Cheikh Mat Bamba Xadimu Rasul li muy symboliser mooy may yu baawaan yi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala may na ko te xajul ci àdduna mu wax ni bismil ilahi yan muuluhaa yi bila manaahi walantihaa yi ci turu yàlla la samay may di yokkoo sans muy am frontière wala muy am jamono bu muy yem loolu moo tax tey cant gi muy màggaluk Tuuba jéggi frontière jóge ba Sénégal ñëw fii ci Maroc ñu koy def fii ci Maroc di ko def ci États-Unis di ko def Europe di ko def fenn fu ne loolu nag di wane universalité bi nga xam ni euh, nekk na ci wooteeb Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul mu mel ni nag sëriñ bi xamoon na loolu ndax xam ngeen ni fi mu àggoon day dem ba àgg fa hadis ba waxoon ni euh, wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya hatta ahbabtu fa iza ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasmau bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa biha borom bi subhaanahu wa taala moo wax ci hadis bu wér mi ngi ci Buxaari wax ni sama jaam bi du deñ di ma jige-jigelu ci ay nawaafil ba ma sopp ko su ma ko soppee maay doon ay tànkam maay doon ay bëtam maay doon xanaa noppam maay doon léppam te sikk sàkk amul ni Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul fu nit di àgg ci yàlla weesu na ko looloo waral moo xamoon lii ba wax ni wa jammilan daariya inda tuuba mhm. waaye wa aya duuriya ayaza tuuba booba xamoon na ni Maroc dana fi am kër xamoon na ni États-Unis dana fi am kër mhm. xamoon na ni fépp ci àdduna suñ borom dana ko fa tàggatal ay murit yoo xam ni bu màggal gi ñëwee danañ ko fa woote ba tax fàttewu leen mhm. ba ne suñ boroom nag ma taaralal sama dëkk bee fa Touba dani waaye sama yeneen kër yi nga xam ne nekkuñu Touba tam nanga ko ca boole ci taar boobu mhm. kon ñoo ngi am mbégte ci bis bi nga xam ni nag euh, damay wax ni bis la boo xam ne ni ëllëg yawmal qiyaam bis bu suñ borom joxoñee yonent yi ni leen waaye yéen la ma leen digoon nan ngeen def ak loola ndax bu ngeen demee ci alquran amul benn yonent bu yàlla ma sa yónni te du nee na ko waxal sa nit ñi ñu sant ma digalal sa nit ñi ñu sant ma yonent yàlla mm, Muusa wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum waaye wala in kafartum inna azabi la shadid mm-hmm. yàlla daawud i'malu shukura wa qalilun min ibadiya shakur kon sunu borom cant gi lu ko ñor la yonent yàlla muhammad moom dañu ko sax far fésal ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis waaye bu ëllëgee ba sunu borom rangale yonent yi yonent yàlla muhammad dana siggi ni man de sama xeet moom xaw ma ñan waaye amoon nañu journée mondiale boo xam dañ la koo jagleeloon yow borom bi di la ci sant te kenn ma ko liggéeyal muy sama jàmbar ji Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul kon journée bi journée cant yàlla la ñoo ngi ci woo ñëpp di ci woowaa Touba Maroc yëpp fas ko yéene ren nag ànd ko bokki taalibe yi fii ci Maroc ci ndigalu sëñ Abdou Samad moom sëriñ Souhaïbou wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mouhamadou Lamine jërëjëf ci kàddu gu am solo gi comme ni ko waxee ci ndigalul Cheikh Abdou Samad sànq ci suba sëriñ bi da koo wax ni ko jox naa la ndigal nga defandoo ko ak waa Casa mhm. kon loolu taw tawféex la ci ñun waa bu ci sëñ tam ne borom xam-xam ni ko dama ànd koog waa Kaasa ngeen def ko loolu kon sëñ bi bu ko mënoon a teewal boppam teewal ñu ko defal na ko loolu ak cant la ci ñun sëñ dowa dafa waxoon suñu borom yaa rabbi in aataytani ñoo ngi woo ñëpp ci cant gi nga xam sëñ Tuubaa wax ni ku bokk ak moom am mbég na nga ko cantale suñu borom fas ko ci yéenee santale suñu borom tey ñaan daja ceeg ngërëmam suñu lépp defaroo ci ndax ngërëmi suñu borom suñu ko amee suñu lépp day defaru la ko sëñ Bay Jaxate waxoon rek lañ koy wax ndegam ndey ak murit ak soxnaa nga xëy di gërëm te bamba di tawat seen i ngërëm du ma saf ndegam ndey ak murit ak soxnaa nga xëy di tawat te bamba mii di gërëm seen ngërëm du ma saf bu bamba mii gërëmee seen i ngërëm du ma saf bu bamba mii gërëmut seen i tawat du ma saf ndegam damay soof akay sàbbaxle ngir na ma mel kuy wut ngërëm daana soofu nit ba mujj mu saf kuy wut ngërëm masa soof bamba mujj safal lu dul ngërëm lu mu saf-saf ay mu jëm nga du saf kon nag yàlla na ci daje ngërëmul Sëriñ Tuubaa saal bii koy defee nag mooy fii ci Lisasfa fi lañ ko defee woon daaw ñëpp xam nañ ko incha allahu rabbana taala kon noo ngi ñaan daal yàlla yóbbuñu ceeg jàmm te nangul nu jaamu gi fulal nu ko defal nu ci xam